الحمد لله حق المبين Hare I ala ndigal Serigne Modou Thiané daayira Touba Ndong la wala ومن قاضي السماء ونعمة مالك السماء سلمني من العداء لمن حول حبيب نصره الله ودع من دعا خير الباقي القديم بألمن العبد القديم جان لي بما يدوم بحمله معتصما أكرم الباطل القديم بأنني العبد قدير وجادني بما يدور بحبلي معتصما لا خطابي شاكرا والطيب المشاكرا وتعذب تعزمي ولا يزال مؤمنا هو الإله هو الصمد تعلي السماء بلا عمل وقد كفاني الكبد وكان لي وكرما أدبر ما لم يرضى لي بخدمة المفضل وكان لي بالأفضل وقضيت الثروة لقلبي الحكيم إليه بي قاد الحكيم يسر لي نعم الحكيم علمني وفهما أنا من رب القرون إجاد فضلا بحليم له بي القلوب وارسال لي ما أبهما علومه قلبي هدب وصدري منبدد هدية عندي غدد نقود من لم يعلم بمن محا بلا سبور يسلب لا العنكبوت يعطي العمري ويبيد إلى الجنان سلما ملك نور اللسان باقي يقود للحساب وليسدد اللسان وليقال المحكمات أنا من يا nañ toog tuuti ndax écran bi ndax soxna yi ci mbaal na jàkkaarloo sëñ bi nañ ñàgg suuf. jërëjëf defaral écran bi fu mu tege baaxul. oh barrière bi day dem de barrière bi barrière bi. ñëw bi daara mën naa wér si biir bàyyee ko fee ca Touba Yarax jaar tey bi rek moom am nañu kontaan ak mbégte taw feex taw feex dëgg lañ ci am parce que daaw géej ñëw na fi jébbal sëñ bi suñu at yii gisuñu mais boo xoolee presque at yi moom lépp gis nañ a a sax ak liñ ci mën a mooy boo xoolee li ci fi am ci mbooloo ak nit ñi daanu ndax mbégte bi ñu gisee sëñ bi dafa dafa jéggi dayoo ba tawféex daal lañ ci am tawféex dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg di ñaan yàlla daal daara bi yàlla na jëm kanam mbooloo bi yàlla na màgg yàlla na màgg daara bi gën a màgg ñu yàgg di ko def ñu yàgg di ñëw di jébbal sëñ bi ndaxaar léegi nga xamante ne pour muy liggéeyal sëriñ Tuubaa def leen gërëm di leen ba déwén incha allah jërëjëf jërëjëf laa bëgg ngeen xam ko li tax may wax li tay waxewu mako pour dar ñun ñëpp ay ndaw lañ sa dañu ne dañuy tak suñu ndig liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba nak du ay wax mo koy def ay jëf mo koy def sét ñun ñi jëf yëpp anañu dañuy raw bark Serigne fallu momi diko ñaanal jox jël ñëw ba teg ko ci loxo mu jallale ko ci kullu gu nek ci koñ bi wala ci kër gi wala ko ci njaboot gi rek. di ko xamal ne ko suñ jant gi ñu ngi koy di ko jëmati si Mouhamadou Diagne mi di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak waaye noonu lañ koy ñaanal sunu yaay yi nga xam ne dañ ko fa daan fekk fii ci daara ji mu daan nu boot dañuy rogandiku di ko ñaanal fa mu nekk yàlla ko suñu borom xar. suñ ko toxee ci loxo sëñ Bada rek mu jàllale ko ci mboolem njaboot gi di sant yàlla baax ci daje bi ak siyaar bi ni mu demee yëpp nga xam ne wax dëgg yàlla am nañ ci tawfeex bu baax waaye ak yokkuteeg am na ci bu baax a baax. kon ñu xam ne rek lu ci waay di wax rek mooy dañu xam ne dañu war a romb fii daara ji ni mu tollook mbooloo mi tubarkal seen jëf dafa war a romb fii kon war nañ fexe ba lépp lu ñu def rek bu déwénee dañoo war a def lu ko raw man ne sàng gis naa benn daayira boo xay moom takk bi mu jox sañ mun Muntaxa man moo gisee sax damaa tiit damaa xeebaat ñun liñ joxe yàlla xam na ko xam naa lu mu néew néew 5 millions yi romb na te loolu jàpp naa ne suñ mbooloo mi mën nañ ko kon la ca des mooy ñu pasteefu gën a feddiliwaat laxasaay gën a jàppaat liggéey bi li nga xam ne moom la ñu sumboon te commencé waan ko mooy mooy carte membre yi ñu waxoon ne dañ koy yeesal képp ku ñuy jàppee membre bu dëgg mooy danga am carte membre ku ko amul nag jàppee ñu la membre duñ la nekk doo ñëw toog ci basang bi ndax basang bi ak euh, xasida yi sëñ Tuubaa yi ñu fay jàng kenn moom ko waaye kañuy jàppe membre dëgg nga xaay ne bu ko bu tey jii bu ko bu bu ko dara euh, euh, arrivé woon moo xam bànneex la moo xam lu man doon daayira ba da cay taxaw day fekk nga am carte membre nga xam ne sas yeñ lay laaj dañuy day fekkit nga nungu nga nungu caa joxe nungu caa bokk ndax loolu mooy tax liggéey bi dox ndax jamono ji lépp a seer looy jëf rek xaalis a koy def bu xaalis amul doo mën a def dara kon nag nañ góor góorgóorluwaat gën a fiddilewaat laxasaay ndaw ñi nañ góor góorgóorluwaat surtout nag ci jaamu yàlla ak nungoo liggéey kuy ñiy jàng nañ góor góorgóorlu seenam jàng fexe cee am résit ñiy liggéey nañ góorgóorlu seenam liggéey fexe cee yokk man cee yor seeni waajur te bàyyi caaxaan yeeg yëngu-yëngu yi jamono yi nga xam ne amul benn solo day tardeel nit rek ndaw du def lu jóg rek mu buubu wuti ca yor jikkoy xob loolu baaxul fu ngelaw ñëw fekk la fa buub la yóbbu la sëñ Ablaab da dafa waxoon ne képp ku yor jikkoy xob ngelaw dina la yóbbu ci pax te moom ma la fa dugal sax du la mën a génne kon am na yenn yoo xay nii moom ay caaxaan dong la caaxaan yooyu nañ ko teg ci suuf te mal sëñ bi xam nañ koy toppee ndax li mu digle moom te xaalu ko dafa leer nañ te ñun ñëpp xam nañ ko yooyu duy caaxaan sëñ bi caaxaanut fawul fawlut caaxaan yooyu nañ ko bàyyi te nu jaamu yàlla te dëgmal sëñ bi gis nga ku la képp ku la tàggaleeg jaamu yàlla ma ngay lor ma ngay lor képp ku la tàggaleeg sàkku xam-xam ngir mën a xam looy jaamoo yàlla ma nga lay lor te rek la lay dugal ak ku man di doon nag même sëriñ ba nga jébbalu bu la wanul yàlla bàyyi ko fa dem wuti ku la wan yàlla sëñ Tuubaa loolu la digle ku la wanul yàlla bàyyi ko fa sëñ bi ba muy digle dafa ne booy jébbalu sax na nga jébbalu ci sëriñ bu mat sëriñ kooku moo la mën a àggale suñu borom loolu mooy caalale gi jokkale nit nañ bàyyi yooyu te xam li ñu ay ndaw lañu dañoo war a tàmmal suñu cëri yi ak yaram yi jaamu yàlla kennal suñu borom sëñ Tuubaa lool rek ko fi andi woon mission bi mu doon dox lool dong la woon keneen ku la wax lu loolu dalay lay naxta day tuumaal sëñ bi sëñ Tuubaa diglewul lu dul jaamu yàlla ak liggéey loolu moo ñu fi andi fi bàyyi fi ñu waxi sëñ Tuubaa mënul gën a kawe waxi yàlla yàlla li mu wax dafa wane ne bindu ma nit ak jinne li dul ñu jàmm loolu rek lañ lañ fi andee nag nañ ci góorgóorlu te sax ci te bàyyi caaxaan yeeg naxaate yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu